10,21 pour cent des recettes et 2,4 pour cent du PIB c'est-à-dire tey bés bu ne Sénégal dina fay citoyen sénégalais bi bés bu ne dina fay lu ëpp un milliard ci intérêt de la dette bi dette bi jaaduwut argument bi ngeen di wax nag mooy nañu cité ban réew ci àdduna moo dul leb dëgg la réew yëpp ay leb te réew yu ëpp bor Sénégal bëri na waaye réew yi ngeen di tëkkale seen bopp di comparer seen bopp dañu dajale ñett li ci ëpp bokk surtout nag réew développé yi ngeen di tudd benn bi mooy dañoo am une excellente capacité à mobiliser les ressources fiscales soo jëlee zone union européenne bi ratio recette fiscale ci bee mi ngi ci 40 pour cent soo jëlee zone OCDE e bi mi ngi ci 35 pour cent boo ñëwee Sénégal yéen a ngi ci 17 pour cent kon kooku mënu leen comparer seen bopp ak ñooñu parce que ñooñu dañoo njëkk a def seeni effort ba mën a dajale alal li tax nag fii mënuñu dajale suñu alal suñuy recette li ci ëpp mu ngi jëm ci li ñuy wax les mauvaises pratique fiscales keroog fii dama la interpeller ci lenn nga tontu say député tàccu la waaye yow li nga tontu xam nga ni loolu amut te maa ngi am fii benn arrêté boo xam ne yaa ko signé woon 2014 bi ngay nekk ministre budget ci arrêté boobu da nga ne woon. indemnité pour frais de yi dañ koy imposer arrêté baa ngi nii soo ñëwaatee 2019 ne indemnité boobu duñ ko imposé ban Ablaye Daouda Diallo la ñu war a gëm wala la ñu war a comprendre te ba nga koy wax xam nga ni indemnité boobu c'est imposable mauvaise pratique fiscale yi bokk na ci wax nañ léegi convention conventions fiscales daaw fii la ñu toog ñu andi assemblée convention fiscale ak Luxembourg ma taxaw fii ne leen baaxul ci Sénégal def nañ kook Île Maurice baaxul ñëpp taxaw ne baax nañu wote ko waaye tey topp ngeen ñu si ndax maa ngi nii ak lettre bi ngeen bind Île Maurice daal di dénoncer convention fiscale bi te li tax ngeen dénoncer ko mooy ba ngeen ko signé lépp lu entreprise minière wala pétrolière dañoo domicilier foofu pour bañ a fay impôt kon contradiction yi am seeni politique ak milliards yi muy perte loo Sénégal kenn xamul nu mu toll ñaareel bi mooy réew yooyu dañoo moom seen monnaie dañoo am seen monnaie am banque centrale boo xam ne mooy définir pour émission monétaire bi mooy définir les taux d'intérêt waaye mooy définir surtout la politique de change loolu amu leen ko kon amuleen leen politique monétaire ñett mooy yor mbir mi politique monétaire politique budgétaire ak politique fiscale amu leen politique monétaire politique fiscale bi baaxul su ngeen buggee leb ci condition boobu di tëkkale seen bopp ak France wala États-Unis da ngeen di ndax seen bopp ñeenteel bi mooy réew yooyu fexe nañu ba seen alal seen ressource naturelle ñu gérer ko ci ni mu gën a baaxee fii nag du loola te suba dinañ ko wax ak ministre du pétrole parce que xaju fi les pouvoirs publics ñu ngi war a voter 120 milliards pour les pouvoirs publics 77 milliards pour présidence de la République 8 milliards pour HCCT 6 milliards pour CESE 28 milliards pour secrétaire général du gouvernement 120 milliards yoo xam ne dinañ ko voter waat fii sans débat ci ay conditions yoo xam ne nañ koy voter amul débat exécution bi c'est opaque amul benn contrôle bu ñu ciy def boo jëlee li ma gën a xam muy institution bu mel ni assemblée nationale. assemblée nationale c'est une zone de non droit budgétaire wax naa fi fraude fiscale am na assemblée nationale te yow xam nga ko ndax say service redressé nañu assemblée nationale. wax naa ni ñëpp gis nañ ni blanchiment d'argent am na assemblée nationale j'espère que sax blanchiment de drogue wala drogue bi ñuy tudd egg wu fi ndax na député boo ne xam na ci lu bëri Euh, blanchiment d'escrocs publics am na assemblée nationale ndax commission d'enquête parlementaire bii doon essayer blanchir ay nit j'en profite pour féliciter l'OFNAC qui a déposé son rapport sur la table du procureur ki a confirmé li mu wax yépp ci 94 milliards yi et qui a demandé l'ouverture de de poursuites contre les personnes concernées gàcce dina am fii ci assemblée bi ma waxaat ni non respect des règles de passation de marché public am na assemblée barki démb directeur général ARMP wax na ko